na ci laax bu tàng de la Soleil yéene kaa ne autoroute à péage ba de Ndakaaru njaay jël joob jam ñaa joog aéroport international bi lees waaw jàpp leen ne capital boobee téeméer boo jël ñaar fukk juróom ya day léegi na nguur gee borom ñaf yéene ne gis nga autoroute bi le waaw suuf si nga xam ni kon foofee la yi teg sa kaw day waaw at bu ne léegi tubaab yi dinañu jox nguuru Sénégal gi la juróom-ñetti téeméer ci ay millions laa la wax waaw waaw te xam nga contrat ba ñaata lii du dëgg maa la wax la ñu doon jox at bu ne naan somme symbolique déggal ma lii rek rek termine yéene kaay de dëgg la de dama ne la autoroute à péage ba waaw ndax yàlla waay ña ngay fay nag léegi nguuru Sénégal gi la juróom ñetti téeméer ci ay millions la la wax at bu ne exclusive yéene kaay kay gagnant gagnant la le témoin yéene kaay ko dëgg la waaye lii dëgg tamit day termine yéene kaay nee na mooy gis nga wàllum ji temps yi ah wàññeeku na dee dëgg la waaye catli nag ci Sénégal gi la mooy ñi nga xam ne ñoom ñoo ci dee allahu akbar daanaka léegi jege na junni ci ay doomu aadama laa la wax mille morts inna lillahi wa inna ilayhi rajiun yéene kaay dee lool ci wàllum garab gi nga xam ne wala pikiir bi AstraZeneca bi waaw lëf la de dama ne la mbira parce que kilifa ci boppam kon fañ ne kon dugguñu fa ba léegi ne la dee dee dee docteur Mamadou Ndiaye scientifiquement waaw amul dara lu tegu ci kaw taabal ji lée luy wane ne mbir mi kon day def ay effets secondaires waaw waaw Le Soleil yéene kaay moo tax it agence européenne du médicament waaw ña ngay def nag ay enquête kon ca mbir moomee Le Témoin yéene kaay ne waaye nag ci ay borom yi xam-xam ñu ne ca ministère de la santé googe nee nañ nguuru Sénégal di jëfandikoo ko AstraZeneca googe en attendant organisation mondiale de la santé kon ca wax termine yéene kaay waaye auto politique ba tam taa yëngu na dee lool dama ngay dox di dem dikk adi dem ci biir réew mi ak waaw opposition bi day doole ji nga xam kon moom la ñu yoroon ni lée daal di ne dellu soirée si seen jàkkaarloo ak président Macky Sall mi lée waaw waaw waaw nee na ñun politicien bu ñu juguloon jàppale Ousmane Sonko mi lée bilaay dinañu ko réccu dinañu ko réccu fii ñaata opposant ñoo duggul ci kaso bi lu ëpp na tuuru saa si fii Dakar Times ne Sonko Khalifa Sall moomee d'accord nañu de d'accord nañu de ngir Macky Sall mi la daal di fii jugee na dem na dem na dema dema dem moom Khalifa Sall moomee ci direct news waaw nee na calendrier républicain bi ci boppam kon dañu koo war a respecté 24 heures yéene kaay ne gis nga élection locale yooyee waaw dama ne la population bi ci boppam ñoo sentirul seeni loxoy maire ci lu jëm nag ci wàllum yokkutewu seeni gox dëgg la parce que ñi gën a bëri ci suñuy maire amuñu benn lecture ci lu jëm ci wàllum koom-koom gi lée lalu ci seeni gox tribune yéene kaay ne gis nga coowal Ousmane Sonko bi lée waaw xoolal ma Khalifa Babacar Sall Guy Marius Sagna Karim Wade ak ñeneen ak ñeneen ñu daal leen xañ seen ak ak seenu yelleef jël leen tëj leen ci kaso bi ci lu ju fenn nag laa la wax jaay doole am na ci geneen wet ga day ñoom Mamadou Diop Decroix Abdoul Mbaye Alaaji Malick Gakou Thierno Alassane Sall Déthié Fall Barthélémy Dias waaw ña ngay organisé wu ngir taral xeex bi ci kaw Macky Sall laa la wax waaw waaw mbir ma jeexul de déedéet parce que ca ci wàllum manifestation yi manifestation yooyee libération yée ne am na benn xale boo xam ne bala lañ ko dooroon day mujj naa dee allahu akbar ca bi ñoo na la ah Chérif Mané lay wuyoo xale ba day mujj naa wuy ji boroomam laa la wax sur côté yéene gaañaa nga jëm na ci booloo de bi parce que Ousmane Sonko bi la rëdd na yoon wax Khalifa Sall ak ña moo àndal day dëggal nañ yoon le quotidien yéene kaay ne gars yi defar nañ benn projet Ousmane Sonko Khalifa Sall ngir ànd defar benn front jàkkaarloog Macky la waaye daa mel ni gars yi jubóowuñ ci élection localité Ousmane Sonko élection locale yooyee Khalifa Sall moom dafa bëgg ñu defar fichier électoral bi ba pare njaga si laa day waaw élection locale 28 mars 2021 bi lée waaw nguur gi bu ko naree a day dana defaraat beneen projet de loi laas eh, Ousmane Sonko day waaw daal dinay yokk nag ndox ci discours am ci France parce que njiital Pastef nee na amuñu problème ak France te déedéet waaye Macky Sall moom na ko leer ne jugaatee day mooy gën a miti lim fi dundoo ah. dama ne la ñaareelu vague bee nar a gën a tar su dee su dee liñ ko sant ni defu ko critique yéene kaay ne Ousmane Sonko day ma ngay yëngal nag ñaareelu yëngal gësëm bu ñu génneewul ñu nekk ci kaso beeg yooyu ah. Ah. dama ne la Ousmane Sonko jëf ak suba bi la deuxième vague risque a gën a yàq li fi xew Macky Sall ñoo ci xala yàqu rek bog sobi ne manifestation yi ak yàq alalu jàmbur yooyu day Alioune Sall naqarloo na ko de rako Macky Sall bi ci boppam ne mais amul benn sens yàq ay bërëbu nguur gi yàq ay kayitu juddu certificat de mariage am ci ñoo xam ne seen bopp day tourné ñu traumatiser leen Alioune Sall ne mais loolee amul sens l'observateur ne pourtant na nooy na nooy na nooy waaw teewul Macky ma léegi déré de parce que kenn ku teg pression ci kaw te Ousmane Sonko mi de bu ñëwee gën a def lu gën a bon Malick Siré si ci exclusive yéene kaay waaw nee na ko mais gis nga monsieur le président gars dañ lay kàcce de waxuñ la dëgg dañ lay nax parce que si sa nguur les scandales fonciers yi gën a bëri la wax te gis nga monsieur le président dañ lay kàcce waxuñ la dëgg konoon duñ la bàyyi ngay tànn ay magistrat ca cour des comptes gële te loolu musul am te gis nga monsieur le président sa gars yi la dëgg de konoon dañ lay bàyyi ñuy organiser généraux d'état waaye 2012 ba léegi ni la yow yaay tànn te gis nga monsieur le président waaw mbir mi nekkul tabax ay autoroute ak ay terre waaye yorin gu sell lañ la wax yéene kaa gi coowal Sonko moome ak Adji Sarr mais xoolal Pape Samba Sow avocat ba fukki fan juróom laataa dossier bi éclaté day man recevoir naa Adji Sarr di ko conseillé yooyu Samba waaye bind lu ma ko plainte ba direct news ne directeur général SICAP day Mamadou Kassé ginnaaw mbanang ah ci lu a nag ci wàllum 100 000 logements yi lée ak valeur de l'habitat bi le borom Tambacounda day moom sëñ bi kase nee na président Macky Sall ci boppam révolutionné na wàllum habitat googe waaw tribune yéene kaa ne waa des médias day door nañu mise en demeure waa sénéra ngir ñu indi ay gindi na ci lan mooy ndey ñu tëjoon télévision bi le bugaan ngay dani day PDG des médias waaw nee na Babacar Diagne lan moo tax kon nga jël yoon wii nga xam ne bindoo yëgaloo dajale ba na amee kattan googee nag ngi nit lañ amee waaw nee na xam nga lan moo tax ba Macky Sall mi la di delloo suñu démocratie bi nii ginnaaw waaw tey ma wax leen ko njiital tekki ne gaz naturel bi nga xam ne kon ni koo gis ca Saint-Louis ge aca Kayar waaw moo tax ba Macky Sall di noot nit ñi ak a delloo wàllum démocratie bi ginnaaw laa la xanaa Macky xamul ne pétrole bi gaz a ko <laughs> waaye nag na xam ne ak lum ñu noot noot noot noot noot noot noot pétrole bi moom kenn mënu ko fàtte déedéet parce que suul gaz du ko tere xañ te troisième mandat dañ ko fiy tere rek boo paree ma ne la dox sa dox nekk ci say mbiru bopp te dara du la ump ci réew meek ci àdduna si application Sénégal set indil na leen ko waaw waaw Apple Store ak Android nga koy téléchargé ci sa iPhone sa smartphone sa tablette mbaa lépp luy portable bu mucc ayib rek te méngoog doxalinu jamono xeetu xibaar bu mu mën a doon nag politique tàggat yaram xew-xewu jamono ak fu mu mën a xewee ci réew meeg ci bitim réew noonu nga koy yégee ci saa si ak ci ité bu mu la mën a fekk nag àndal ak Sénégal 7 muy application booy téléchargé rek presse en ligne indil la beneen melo bu la tàggaleek coono nde Sénégal 7 nee na la presse en ligne autrement.